Euh, su ñuy wax nag Basiiru moom Badar la bokk euh, muy dëkk boo xam ni dëkkub alxuraanul karim la euh, ku xam Badar xam ni ki ko sos it li ko taxoon mu sos ko leen rek la mooy jàng alxuraan ndax fépp fu mu mës dem sax bu ko fa nit ñi fekkee mu xam dina yàq jàngum alxuraan ji da ko daan bàyyi dem feneen kon foofu laa sosoo bu fekkee ci wàllum jàng tamit ñi may gis xam nañ ma bu baax man Al-Azhar laa jàngee bu sëñ Murtala fa laa dalee jàng tey ku xam Al-Azhar xam ni produire nañu baree bari ci ay boroomi xam fa laa jàngee ba ni ma fa amee BFM Euh, continuer di jàng ba am bac bi ma amee bac it dem université def fa deux ans bi ma fa defee deux ans nag ci laay doogay tourné waat ngir mokkal alxuraanul karim nga xam ne man yéex naa mokkal alxuraan lool ndax damaa jàng ba sori xool sama diggante ak alxuraan gis ni xaw naa cee feebul lool lool ma daal ci defaat yi ay jéego defaat ci effort dem ci ay daara yoo xam ne damaa laxaswaat bi may nekk mag dem daara ngir ngir jàng alxuraanul karim ak yoo xam ne samay effort bopp la ja surtout sax jamonoy covid bi nga xam damaa ñëw Touba ñu tëj ñu fi daal ni amul génn ci raison yi boobu nag ci laa jàng alxuraan nag ba mokkal ko ba xam ni mokkal naa ko kon Covid bi am na njariñ de. waaw ah, macha allah man kay Covid bi moom bokk na ci ñu bëree bëri dañ ciy naan dañ cee loru waaye man moom Covid bi daf maa jëriñ ndax dama ci laa jàng alxuraan tëju bu ñu naan soxna Ndeye Guèye fa laa doon jàngee ñoom mujj gi sax dañ naan waa kii xanaa daa nekk daara ndax dama fajar gi yëpp damay jàng a mokkalee yi may laaj jàng alxuraan macha allah borom xam-xam yi waxoon nan ko nee na mënoon nañ ci am luñ ko exploité bañ a bàyyi temps bi rek mu widdi noonu dem Euh, macha allah jërëjëf suñu Basiru ñu gis la nag nga indi phénomène bu bees boo xamante ni. da ngay wër di dem ci raison yeeg ci daara yi di xool xale yi mokkal alxuraan nga mel ni da nga leen di toppata toppal ñenn ñi ñenn ñi nga dikk ci xeeti ruube yi ñenn ñi nga dikk ci xeeti saar yi nga xam ne dafa nuroog yooyu di ci kii loolu ban nga jël esprit bi. macha allah comme li ma la wax rek c'est man damaa dem ba nekk mag. Hmm. yëg ni kat alxuraan man néew naa ci doole ma dem jàngiwaat ko. ba ma ko jàngee tamit ma gis ni mokkal naa ko ma xam ni ko lii lu mën a nekk la euh, ma seetlu tamit am sama waajoo xam ni dañ doon daje jamono ju nekk di fittante ci alxuraan hmm. bi mu duggee ci marché bi benn jour ma fittu ko ma gis ni kat mi ngi dellu ginnaaw ci alxuraan ji hmm. te marché baa ngi koy tàmbalee jàpp bi ma ko fittee ci mbooloo rek hmm. mu daal di juum mu daal ciy xaw a am kersa ma daal di bi ma delloo ca kër ga ñetti fan ñeenti fan mu waxaat ma ñëwaatal waaw keroog da nga maa bett nangam nangam ndakate moom loolu def na ko aal ba mu dem nafari ba ma ñëwaatee gis ko mu daal di normal mu kon lii aw yoon la hmm. boo xam ne suñ ko wanee rek inchaa allahu rabbi dana tax nit ñi di gën nafar hmm. yu ndaw ngir gën a motiver waat waajur yi ngir ñu jël seen doom yi jox ko daara mu jàngal ko alxuraanul karim soo gisee it lépp lu may wane phénomène lay doon ca mbir ma ndax keroog maa ngi dugal xale boo xam ne ki naan soxna jaara daa mokkal alxuraanul karim dem di jàng français ba nga xamante nii bi mu mokkalee alxuraan dem jàngi français toog na fa plus de dix ans te teewul ba tey mu téye alxuraanam kon loolu leçon la ci ñi nga xam ne mokkal nañ alxuraan ba pare waaye nekk ci école français bi di jàng yenn saa yi tamit ma wan la koo xam dafa nekk ci métier am ba pare yor alxuraan kon yow mi nekk sa métier tamit mën ngaa xam ne alxuraan mokkal ko mën naa ànd ak nga nga yoraale sa métier kon message yooyu laa ciy jàllale macha allah ginnaaw bi nga ko tàmbalee yan moo la ci gën a yëpp yëpp sax da ngay wax ne rek yu la marqué waaye yow ban moo la ci gën a marqué yow mi doon liggéey mbir mi. macha allah ku nekk nag daje naa ak moom ci alxuraanu karim ñu bëree bari gis naa leen ndax yaakaar naa dëkk yëpp dugg naa fi ci yu bëree bari book gis naa kaang mu nekk waaye ñaari mbir dañ ma marqué lool lool lool. Mm-hmm. Eh, ki njëkk mooy Mouhamed Tine ndax Mouhamed Tine lu tax mu marqué ma mooy moom dafa nekk silmaxa benn mm-hmm. waaye ñaar tamit mokkal alxuraan mën nañu sax loolu dese naa yéeme waaye mokkal ko ba pare mokkalee ko nu yéeme nga xam ne laaj yi nga koy laaj boo ko waxee sax mu wax le runge gi boobu fan la nekk ak fa nekkee ak nangam ak man yooyu dafa dem moo tax sax sama bisu nafar bi moom laa ko jëloon darajal ko ngir nim ma yéemee ci alxuraan beneen bi mooy Démo Njaay ñaari seex a xam ne jël naa leen fii ca Touba ñu doon tamit ay xale yoo xam ne xale yu ndaw waaye mokkalee alxuraan ñoom tamit mokkal gu ma ñaar ñi daal ñooy ñi ma ci tuuse dëgg-dëgg nag ci ak xam naa su ma dolli mooy ki jël concours nafar bi boo gisee teg ko am mbër ah rombee nga ne kii a xam dara ci alxuraan nga xam damaa ñëwoon di laajte lam yokku ni mu ma fu neex laaj ma ci alxuraan ma ne ko déedéet loolu mënta nekk mu daani ndakate ndeysaan macha allah mokkal na alxuraan karim waaw Dakar la dëkk ah, nga xam ne kon foofu jox na ma fa leçon bul gis nit di ko xeeb ku mu mën a doon rek jàppal ni war naa xam dara ah keneen ki tamit dama <laughs> xam naa ni ñeenteel bari nañ hmm. waaye keneen ki tamit mooy ki nga xam ne boo gisee ab mën nañ ñi dañ naan wérut hmm. mu nekk marché njaareem man bi may nekk xale laa ko xamoon di ko fa romb muy bind ci tali yi hmm. ñi di doxante muy waxanteeg ñoom wax ju ñaaw ker bu ma fa laaj lam yokku ni mu daal ni na koo tari ma ne ko déedéet mu tari ko tari bu set wicc ba amul benn yàq yooyu yëpp daal yu may eh, daj ci liggéey bi la ñoo xam ni macha allah rabbi yàlla may na leen ci alquran karim. Mhm. danoo gis tamit ñi nga xam ne dañuy bind yenn saa nga dem xooli ñu bind yooyu mbind mi danga nga def taxasus da nga cee xam eh, comme ni nga man ci alxuraan ji ni nga xamee mbind yi tamit. macha allah bu dee bind nag maanaam jotumaa bind sax alxuraanul karim mhm. waaye nag bari na ñu may fréquenté ñoo xam ni ay nitu alxuraan la ñu mën a bind ku mel ni sama mag Serigne Salihu Gueye Badar bind na kaamil Serigne Abdoul Khadir Gueye Badar tamit moom tamit bind na alxuraanu karim ak sama benn mag bu naan Serigne Moustapha moom tamit mën lool bind alxuraanu karim man sooy gis sax bindu arabal bi laa gën a mën que bindu bindu calligraphie ñuy bind ci alxuraan waaye su ma gisee xale yoo xam ni ah dañoo mokkal alxuraanul karim toll ci dix ans onze ans ba pare mën koo bind te duñ ko xool loolu daf damay yéem ma bëgg koo wan ñëpp ñu xam ne Sénégal amul lenn lu ko nit di jaay ci alxuraanul karim lépp looy wër ci alxuraan mën nga koo fekk ci réew mi di Sénégal. Mhm. loo yëg ba ginnaaw bi nga yëg ne di nga da ngaa war a continuer ndax euh, affaire bi nan la la ci nit ñi kii ba nga ba nga yëg ne lii daal dootoo ko bàyyi. macha allah lool rek la ndax tey fu ma romb. Mhm. ñu naan borom alxuraan jaa ngi nii mm-hmm. man fi mu toll ñu bëree ba dañ may laaj naan ma waaye sëñ Basiru lii loo ciy am coono yi ngi ciy dañ nangam nangam mosuñoo gis nga laaj ci lu mel noonu man leen déedéet du ma ko def ndax li ma ci am mm-hmm. nit yor na milliard te ko mooy gis ma nit ñi maanaam romb nit rek mu daan ni la ah, yow borom alxuraan ju neex jaa ngi nii benn ngoog ñaareel bi tamit mooy ki ma jëloon buntu pikin mm-hmm. nga xam ne dama koo jëloon mu fët bi ma ko jëlee mu juum ma laaj ko ñeenti laaj mu tontu ñaari daal di juum ci yeneen yi ndeysaan ndakate weeru koor gépp bàyyi na njaay mi dem di nafari di nafari nafari ba ma gisaatee dafa jàpp sama loxo bi keroog ñëw ma woon ngir filmer sax mu ne ma tey danga may laaj ma ne ko ah mu ne ma yow rek laa laa xiif fi mu toll nii tey doo ma tegal dara sax maa lay tegal sama yére yi ma laaj ko ci mu tont ko tont bu rafet ma ne kon lii aw yoon la yooyu daal moo ma ciy motiver ba nga xam ne du ma sonn ak bëgg gi ma bëgg alxuraanu karim nga xam nit bu bëggee dara di ca nekk du ca sonn ndax fi mu toll ki takk ay dàllam di daw di sport yi soo ko yónni woon ci distance yi muy yi yi danaan la jox ma xaalis wala ma jël taxi waaye bu dee daf ko bëgg rek mën na ko dawal boppam daanaka énergie boobu laay am ci liggéey bi ba du ma ci sonn du ma ci yokkat macha allah Hmm. yow yenn saa nga dalal benn xale ñi nit ñi ak yow ci sa bopp sax nga wax ne hmm. kii ni mu tuutee mokkal nga war kii day war toll ci dalak yooyu mokkal na alxuraan hmm. eh, après lan ngay yëg boo kiyee <laughs> ba noppi. waaw damay yéemu <laughs> da ngay yéemu de wallaahi lazim da ngay yéemu maanaam eh, yu bëree bëri yoo daan gis man dama dama doon topp alamul arabi maanaam monde arab dama ko doon dama ko doon topp bu baax a baax a baax di xool nit ñi ay ay Youssouf Henshi xam naa ñu bare bari xam nañ ko ay ñu yéeme ci alxuraan. waaye man ma doon topp ñooñu waaye bi ma demee ba dugg ci liggéey bi ndekete lu mel noonu mi ngi ci biir Sénégal te ñun xamuñu ko woon léegi nag su génne googu ma koy génne maanaam su ma taxawee xale bi maanaam da ngay gis xale boo xam ni maanaam da ngay yéemu daal ci yàlla maanaam xale yoo xamante ne nii dix ans neuf ans wallahi lazim neuf ans la ñuy am cinq ans la ñuy dal wala 6 ans 3 ans ñu jàng ko mokkal alxuraan mokkalin wu rafet fi mu toll Sénégal bokk nañ ci dëkk yi gën a mën riwaaya wars ci xaari maxaarijul xuruf bu leer naññ concours bu ñu dem tamit ña ngi fay wane seen bopp macha allah rabbi waaye daal kontaan daal lay def ci loolu du ma ci am dara lu dul mbégte gu ma ciy am ak fierté nga xam ne damay damay damay xemmeem sax man dama daan faral di wax ni musuma toog di ñaan yàlla naan ko yàlla yàlla nga may xaalisu àdduna musul am waaye su ma gisee xale yu mel noonu damay am envie sax am lu mel noonu ba mën koo defaat ci ñoom ngir seen morom yi def lu mel noonu ci caaxaan beneen wàll wa damay gis ni seen morom yay def ak ñoom yooyu dañ leen di neexal di leen ci jox ay kër ak nangam ak nangam kon pourquoi pas star yi ci mel noonu loolu daal su may am lu may naqare daanaka loolu lay doon waaye daal mbégte rek lay am ci xale yooyu di euh, yow boo gisee xale bu mokkal ci xale bi ngay yéemu wala ki ko jàngal koo ciy gën a yéemu ci ñoom ñaar xam nga nag loolu sax du dama koy wax man sëriñ daara yi ñoo ma gën a yéem ndax xale bi moom dañ la ko jox mu nekk war a xatun bay do waaw bu weex taal bu amul dara waaye yow mi mën a fekk xale bu am quatre ans nga fexe ko lijjanti ba mu xàmmee araf pédagogie boobu nga jaar kooku kon ku jara sargalaat la moo tax ki may njëkk a yéem mooy mooy sëriñ daara bi bi nga xam ne moo def ci moom alxuraan ji beneen bi tamit xale bi moom li nekk ci moom yàlla moo ko def ndax loolu moom xam nañ ko sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa allah dafa am fi xale yi seen i catégorie xel dañoo wute mais sëriñ daara bi mën a xam kii lii mooy capacité kii lii mooy capacité ba mu mën koo teete ci loolu ba mu mokkal alxuraan ñoom tamit kenn demul ñu des wax dëgg fa yàlla maa shaa allah. <laughs> gis na la da ngay jóge fii raison ba raison mm-hmm. di dugg ci oto yeeg yooyu da ngaa yor oto sax wala yoro oto danga am nga oto. <laughs> waaw xam naa ne de moom li may faral di wax rek mooy. Hmm. tey eh, oto moom li muy jariñ mooy nga dugg ci rek yegg. Hmm. Ah, te ku yor otoom dugg yegg it ma dugg yegg rek yegg rek moo am solo. <laughs> métti na di yegg ko macha allah li ma la wax sànq rek mooy énergie bi may poussé ci loolu. Hmm. mooy bëgg gu ma ko bëgg nga xam ni xaaruma ci dara xaaruma ci kenn ci leen damay dox rek di dem ku ma ci fekk it loo ma ci fekkee rek alhamdulilahi rabbil alamin waaye man damaa gëmut ni da war xaar ba am lii ngir yàlla yàlla moom damaa gëm ni mhm. kenn ku ne fi nga toll mhm. jox na la kàttan goo ko mën a liggéeyalee ci foofu mhm. ndax yow yaa ngi exploité kàttan googu yàlla jox nga ko ciy liggéeyalam déet am am defoo ko waaye nit warut a wax ni damay xaar ba am nangam wala def doo doogay liggéeyal yàlla ci nangam fa nga toll rek liggéeyalal yàlla ci loolu te ñun lii dañ ko jàppee liggéeyal yàlla bu bu leer naññ suñu digganteeg suñu borom am ci yéen a ju sell macha allah rabbi ak sëñ Bassirou am na loon jaay doonoo gis ne génne xaalis yomb na la lool ñaari junneeg ay <laughs> lu tax loolu ak <laughs> jëlee xaalis euh, man moom joxe dafa mos a nekk samay mbir ñi ma dëkkal ñëpp xam nañ ko samay mbokk xam nañ loolu sama yaay xam na ko man damay joxe joxe euh, sama yaay xam na ko dama daan joxe ba du ma desee sax yëre bu ma sol su ma amul lu ma joxe damay joxe man euh, taxaw daara yi may dem ba ma koy def sax boobu internet xawma nga xam ne man xaalis moom dafa dañ ma ko dénk rek maanaam day day day kii rek waaye day dem moo tax ku taxaw sama kanam boo mokk boo mokkalee alxuraan di tari poosé laay njëkk a xalaat lu ci nekk su ci dara nekku damay am ma nga xamante ni <laughs> maanaam joxe googu daal daa bokk ci man xaalis bi tamit fi ma koy jëlee tàmbalement bi daanaka marché yi ma doon dem dama fa doon def sama liggéey su ma demee bénéfice bu ma ci am ma koy ma koy ma koy séq ak euh, gars yi alxuraan yi ndax man euh, yenn saa yi damay nekk ci toolu ñaam bi yeeg ay gerte yeeg yooyu nangam su ma ko demee nag ba def ko weccet la ma cay amee rek laa doon bokk ak yi may fekk ci marché yi waaye mu gi nag ndeysaan ñu baree bari commencé di ci jàpp bëgg mu gën a am doole bëgg may gën a dem bëgg di def ci transport bi yëpp ndeysaan sénégalais yu bare bari di ci jàpp ma leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm sa concours ko defaat bi nga defoon ren di nga ko defaat wala fi nga euh, <laughs> nag ñu ngi ciy xalaataat bu baax a baax a baax ndax xam naa ne xawoon naa bëri ay kii yu ci nekk donte ni waaye nag yéen a jaa ngi sell ba tey mhm. teyit bu soobee yàlla dinañ xoolaat bu dee euh, maam daal dinañ jéemaat daal mu am incha allah na mu amee woon wala nu ko raw segam neex na soobee yàlla wax nga bi ngay da nga jàngaat dab dabaata lan jàng boobu fan nga dab dabaa la tolloon bi ngay kiiyaat. Euh, man suufee woon na loolu daanaka yaasin sax yeeguma ma fa waaw man daanaka alxuraan mën naa ne ci li ma ko fatum jàng ko daanaka matul juróomi weer mokal ko carrément te boobu tamit dama doon topp euh, ay minwaal yoo xam ni ay barnaamij yoo xam ne dañ koy teg ci seen yi daan ni ku bëgg a mokkal alxuraan ci ci trois mois daal di lay tegal méthode ni la méthode bii la boobu nag laa topp rek far yàlla def ci jàmm daal di bëgg ma mokkal ko rek ci kàttanam ak coobare mu daal di demee noonu Mm-hmm. ku la téyel boo wax ne mokkal nga. waaw <laughs> maanaam tere euh, naa ci ñu bëree bëree bari ñoo xam ne seere nañ loolu euh, tey ku mel ni Xasan Fall doon koo xam ne euh, ku mokkal alxuraanul karim la maanaam bi ma leen njëkkee leen mokkal naa dañ ne ma ah a nekkee man leen maa jiite naa fi la <laughs> macha allah rabbi ah ay ñoom Mouhamed Diène ñoom tamit ñuy ñoo xam ne mokkal nañ alxuraan depuis 2003 bind ko doon ñoo xam ne seen alxuraan rafet na ñoom ñëpp daal xam nañ sama mokkal alxuraan macha allah.